bismil ilaahi maa jógaat màggal gi laay fàttaliwaat mboolem muriid weer wi di safar bismil ilaahi maa jógaat màggal gi laay fàttaliwaat mboolem muriid weer wi di safar weeru teetina Seex Muntaxa woo teetina na ñépp jóg waajal safar yaa ala barri wuy ji leen yaa ala bahri wuy ji leen sëriñ bu mag bi woona leen na ñépp dem Tuubaa safar muriidullaahi ay waleen màggali jot na waa ji leen ndigal la ñëw na wuy ji leen Seex Bamba mi boroom safar muriid yi bamba woona leen tiijaan yi bamba woona leen xaadir yi bamba woona leen na ñépp dem tuuba safar laayeen bamba woona leen taaleen bamba woona leen ñaseen bamba woona leen na ñépp dem tuuba safar nit ak jinneeg malaa'ika naar ak tubaab kazaalika ñépp ngi ñëw tabaaraka di wuy si bamba ciw safar seex bamba yaay ki ñuy bégal sun xol yi yaay ki koy dundal waa mi yaay ki leen defal jàmm ju sax ci aw safar maasa allahu bamba yow ku nam yàlla ñëw fi yow mboolem sëriñ si yaa ci raw yow rek la yàlla jox safar ku bëgg bamba am nga saas ku noonu bamba ñàkk saas mboolem murid yépp a ngi noos Seex bamba rekk am safar